situation lenn rek ci xanaa lenn ñaar ñi ko seq di def seen i combine politique daal la baax ci ñoom mais loolu baaxul ci réew mi baaxul ci eh, justice Sénégal baaxul ci crédibilité Sénégal. est que ak lu mu mënti lu ak lu mu mënti doon Ousmane Sonko dañ ko war a àtte. yaa ngi dégg ci procès boo xam ni c'est un procès équitable mu indi ay avocats gars yi teg seeni i mu teg ay éléments bu setalee boppam ñu ne ko góor gi mun maa ñu ko jógal ñu bi sa kër loolu mooy démocratie loolu mooy transparence loolu moo sérieux leneen lu ñu fi def ci combine bëri ak affaire euh, euh, magu yi politicienne baaxul voilà. Euh, est-ce que dina baax ci Pastef est-ce qu'on ne va pas bu manœuvre yi aboutir vers une fracture au sein de Pastef parce que gis nañu dans Pastef un camp boo xam ne dafa exprimer wu clairement. contre le report et contre dialogue alors que xam nañu ne am na waxtaan bu am entre le principal euh, responsable de de PASTEF et le et régime muy mag muy Ousmane Sonko. mais PASTEF seen organisation humaine ay nit dafa nekk yoo xam dañoo am seen i am seen i affinité les vrais frères Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye dem élection gagné arrangé wu leen <coughs> xam nga baax la ma bëgg a c'est une organisation humaine c'est normal ñooñu li leen arrangé mooy Ousmane Sonko génn ci kaso bi candidaté gagné yore réew mi kaw Bassirou Diomaye Faye yow yow attends ma laaj la benn affaire yow pour yow diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye neex na moment bi yow en tant que journaliste information yi nga am. jot naa ne neexatul de waaye neexoon na loolu nag. non dama lay laaj ci yow en tant que journaliste tu informé. est-ce que diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay moment bi neex na. est-ce que du ma la bàyyi nga tontu ci. non non tontul yow li nga xam. lan mu seen diggante neex na wala neexul moment bi. en tout cas signaux yi may gis par euh, par par par par euh, nu mu euh, waxuma ay signaux yow yow am nga am nga possibilité accéder ci information bi journaliste nga. non xam naa ne yow Bassirou Diomaye Faye ay xarit ngeen. di nga ne. yow Bassirou Diomaye Faye ay xarit ngeen non. ah c'est mon frère. <laughs> waaw jeex na moo diggante ak Ousmane Sonko mi ngi neex wala en en en partant de Bassirou en tant que journaliste yow yow en tant que journaliste information nga. diggante bi mënatul neex. waaw ah, kon baax diggante bi mënatul neex. kon kon ñu avancé. waaw.